mais am nga ne ay mbokk yi arbitre bi sifflé na Titulaire ak Siteu bu Gunaas xale yaa ngay lewaatoo ñoom ñaar Titulaire moo ngem boo ngembul vax bi takk mooso bu xonk bi ci bopp bi Siteu bu Gunaas moom ba tey tamit max la Titulaire ak Siteu bu Gunaas Titulaire door na léegi mbokk yi Siteu bu Gunaas lewaatoo bi xaw na yaatu Siteu bu waaw xoolal ma Siteu bu Gunaas ak benn loxo ba Titulaire door na léegi waaye mbokk yi dalul Modou Anta bëgg naa la. Titulaire ak Siteu bu Gounass. Titulaire Siteu bu Gounass. Titulaire Siteu dóor na léegi Titulaire jàpp na fàq nañ ko fàq na ko fàq na ko Titulaire Siteu bu Gounass nu koy def da koy mu ñëw doole waaw waaw doole doole Titulaire daan na ko moo ngay prier moo ngay tëb moo ngay tëb waaw waaw Titulaire daan na ko. Itileer daan na ko Itileer dóor dóoraat la jógee ma ngay daw fu mu jëm ma ngay daw fu mu jëm xool ko xool ko la muy def lii la ku ci nekk say feem ku ci nekkal say mañee jàppal leen ma ko kaaree nga noonu <laughs> waa dóor dóoraat la parcelle amati na nu